toog fële auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi ziar ñëpp di ziar sama waa koñ di bëggee ñëpp di nuyu ñi fi ñu ma fekk ñëpp waaw di ziaraat Big Pato bu baax a baax a baax a baax ndax li mu def dafa yombul fekk mbër moo xam ne musul bëre nga jox ko drapeau na nag ngay nu ko ci bigit boo xam ne ñëpp leen xam ndax man fi ma dëkk sama quartier ñëpp a leen xam ci Pikine wallahi azim waxuma ko ngir dara mais dama ñëw moom balaa maa wan drapeau bi lañ ma ko wan ne ma bikin bu mag ba lañ leen di defalee signature. waaw loolu rek doy na ndam barki alxuraan parce que mu ñoom ñoo ñu may promo mais ñun ñu leen may promo. dem foo xam ne liñ la wane ñëpp a ko xam. loolu yombul maa ngi ziar nag ñëpp di ziar sama waa koñ. waaw di nuyoo di ko jox ba ci kaw. mbër dégg nga sa waay lu max ñu ngi lay nuyu. waaw dafa di rafetlu kàddu yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi. di sant suñ ñaari waajur. di sant ñi teew ñi teew ci signature bi yëpp. di sant grand bi poto parce que li mu def tamit nice na trop. ñun mosuñoo bëre mu tëgal ñu komba xam nga tëgal ñu drapeau suñ premier combat ngay bëre avant grand combat yomb. bi mooy sa premier combat bii mooy sa premier combat ren. bii mooy mm-hmm. sol blouson am tiset. Mm-hmm. waaw ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla ànd ak ñun le 12 février bu neexee suñu borom stade Arène Nationale. Mm-hmm. waaw. yéen ñaar gis nga sawaay gis nga taay bi daa mel ni yokk na conférence. waaw non mu ngi ci dara mu ngi dara mais sur boobu ñu ngi ñaan yàlla yàlla ànd ak ñun ci kàttanu suñu borom. dina yomb. du yomb. yéen du yomb ci moom yàlla na yomb ci man. sànq daa am loo ko wax da nga ne ko lan nga xaw ma lan ndaama xaw ma loo ci ku bu ndambe nga. doo xeex ak man. day naxi rek. mais du xeex man ki ku bu ndambe la. ni dina xeex de. non du xeex ku bu ndambe la. xool ko loolu dégg kii loolu moom xelam foofu la toll rek. xelam foofu la toll mais naa ko wax benn affaire tey ngenteel jësig bu ko bu ko bar yëgee bu ko mbët yege bar moo ko wax. ngenteel jasig ngenteel jasig su ko mbët yëgee bar moo ko ko wax ah. kon kii léegi da bëgg a wax la ah, que bar mooy daw ci ndox mi di daw ci jéeri ji waaw léegi bëgg mu xam ne làmb ji nekkul luy yomb waaw de bi panteer bi la day dugg ci biir ndox mi fekk fa jasig bi génne ko sànni maa la moo moo déggoo déggoo li ma la déggoo déggoo kii bu naan rabu àll gunóor taxul bu naan rabu àll bokku ci rabu àll non xam na ko bu naan rabu àll gunóor taxul ah. lamb ji bu yaakaar na day yomb mu ngi nax booba ñaar kan moo ci dàq xeex ci li nga yaakaar moom dañuy xeex ba naaw loolu moom jarul sax mu koy ba gëw ma ni xeex dina ci am Serigne Saliou day am xeex moom day soob nii rek xam naa ne bëre la may wo mais bëre bi moom moom moom la pare non xeex bi moom da ngay soob naa xamet i xeex. barki yàlla xeex. ak yow ci sa kaw laay dox duma la duma taxaw sama kanam di xeex ak man. lu leer nañ laa lay wax day naxee. def ko sa bopp. billaahi damay xeex ak yow. Big Pato kaay. Ah, Big Pato kaay. li ma li ma tëggee ka bëgg a waaru sax ñaari xale yi foo leen jëlee avant tout. waaw donc onze billahi mina seytaani rajim. laa hawla wala hawta illa billahi al maa ngi d'abord sant yàlla bu baax jul seen gërëm samay ñaari waajur gërëm samay waajur bu baax sama soxna samay mbokk samay doom ñëpp di la gërëm di gërëm sama frère yi ma fekkee ak ñoom Lamine Wuli TV di nuyu sama ñaari frères yi samay jarbaat samay rak samay mbër euh, Badu Boy ak Boy Refa ah. man sama yaram dafa dawaa ah, parce que xale yi ni ma leen gisee fii seen discipline bi ñu am ak mais nag engagement bi ñu jël ci combat bi man dama li ma tëgg est-ce que lii ndaw la lii may wax rek hmm. li ma waxoon démb laay wax tey boo gisee ma jël engagement pour ne non violence mën na nekk ci làmb ji gis nga fi CNG ñëw fi. police ñëw fi gendarmerie ñëw fi maay police maay CNG maa fi lépp tey booy ku ma ci wax koy dégg te ñoom ñëpp xam nañ premier combat la ñu bëri sol blouson am t-shirt ba parce que une première dans l'histoire de la lutte. Mm-hmm. tey li tax ma dëgg ñaari booy dama ñëw ne nañ indi lu bees concept bu bees la lutte sans la violence culture cent culture 100 pour cent sport 100 pour cent Sénégal te biñ commencé ba ci loolu la ñu dox. may nag leen sama benn rakk bu baax Thierno Ba di ma supporté dépp en tant que mbër parce que ñëpp xam nañu promoteur la mais ñu ngi fii Medina après ko kii dafa dugal statut affaire bi ñu seen waa koñ ne ko yow de sa drapeau bi Thierno mooy sponsor bi Apple Sport kon tey dama bëgg ñu encourager les jeunes sénégalais ñu xam lan mooy métier nit doo toog rek di xaar état man tey xaaruma police ci dara xaaruma Macky Sall xaaruma ministre de l'intérieur ci dara. damay xëy di ci nekk ba samay rak fekk ma ci. ñu ciy nekk fii ngay gis nii ay Sénégal rek ñoo fi nekk booy bi 95 la judd ah dañ koy wax. il n'a même pas 30 ans ñi muy nekkal ñi ay 97 2000 génération 2000 lañ. kenn du ci xëy ba tux naan duñ ko def. jàpp julli ak liggéey lañ xam. te loolu laay conseil jeunesse sénégalaise ak jeunesse africaine sax laay wax. bis ak lan nga ci wàll mën a def ci wàllu innovation parce que gis nañ nasaraan bi jógee bitim réew nga war a ko indil fii bëreloo ko ci bis boobu. tey sama dégg concept ma indi rek dèjà mooy non violente rek lu bees la. ñu indi 100 pour 100 mbër yu musul bëre mu nekk beneen innovation. face à face li ñu xamoon mooy toog télé wala fenn mbër yëpp dajaloo di wax tey li ma indi mooy face a face yoom ñaari mbër rek ñooy ñëw ak seen manager wala seen accompagnant. Hmm. ñu jàkkaarloo ak ñaari journaliste def lu yem. Hmm. mu soobre loolu yëpp ci ay innovation mais solo mooy lamb ja tubaab bi war a ñëw tey ñi ngi naan Hollande bi ndax fu fu ba léegi la ñu xam wala mën nañ bëree tey loolu lépp mu nekk ay questions yu nit Sénégalais war a posé wu xam naa ne moom kuy kuy yéex moom doo am place parce que billets yi ñu commandé sa gëwma dina doy parce que gars yi ñi ngi woote dèjà di jël billets yi te liñ bëgg mooy bu jour ba gars yi gis lu bees sàq am na yoon nag ay surprise doon parce que lamb jom boo nee dix drapeau bu ci benn journée rek innovation la. 10 drapeaux. waaw benn comme benn ngoon 10 drapeaux. te ku ci nekk daa am kooku parrainé. ku nekk daa am kooku parrainé te. bu ci nekk dina ñëw ànd ak ay délégation. te pare maa la benn secret sama parrain yi ñoo jëndal booy blouson yi ñoo may booy t-shirt yi te dig leen leen xam nga tey Thierno mi du fi ñëw di jaay iPhone booy yi ñu fi amuñ téléphone mu leen di seetaan <laughs> ah téléphone. ah. kon sama téléphone day tegu. douze pro daal mu jox ko benn téléphone. fii douze pro am na fi onze pro am na fi. man iPhone bi ma yor. iPhone boo bëgg am na moom ko jox. iPhone am na fi xam nga tey yow Lamine Lamine Seck moo war na mu téléphone yow war na mu téléphone xam nga naa booy sax dem ci téléphone yi. may profité ci. aussi may occasion bi. di la jox sargal yow. est-ce que xam nga yaa ngi def non man mi yaa ngi jàngal sénégalais lu garaaw mooy nga nekk jeune nekk ci benn kër sa yaay sa papa ak sa wujj yaay nekk fa mhm. ak say doomu baay mhm. nga créé benn ambiance ba Sénégal di ko suivre àdduna jiini loolu noonu tey jii euh. télé yu mag ñoo la war a woote sponsorisé la loolu mu nekk benn télé réalité comme ay Kim Kardashian yi ñu ko def ak yeneen télé yi dama koy wax de fu haut et fort ku doon wujje tey mhm. bàyyi nga wujje ndax jiili parce que boo gisee tante ak naa booy ni bu leen ko maye nag dimbaleen ma rek bu leen ko maye fii tey loolu lañ bëgg mooy non violence Sénégal dëkku teraanga dëkk jàmm la tey dañuy gërëm ñu ñuy jàppale waa États-Unis di woo suñ parrain yi bokk ku mel ni aussi grand di woo aussi GFC grand Malay Mbuub ci parrain yi la bokk di woo aussi Thierno mii ñu koy waat di woo aussi waa Lex Africa di woo aussi waa Lutte TV dañ leen war a am drapeau aussi Mohamed tey ñu bëri xam na dañoo xam benn affaire mooy man tey ñu bëri bu ñu ma xamee am na ku nekkoon sama ginnaaw mooy lutte bi ñoo a joxoon benn booy bu mën a liggéey Mouhamed mu nekkoon sama ginnaaw di ma filmé kon kooku dama koy sargal ci bis bi Mouhamed men Mouhamed bu lutte bi xam naa ñu bëri ñi naan bi poto émission bi noonu ma ko jox mhm. mais li ma am ma bokk ak moom mooy journée ma ma partagé ko ak euh, waa tey nag li ñuy def mooy parrain bi Thierno dafa ragal micro yi mais Thierno kan mooy kan mooy kan mooy ñëw siyaar nan la. delloo siyaar bu wér. Euh, lan nga ci bis bi parce que bu ñu jëlee bis. tuddee ko Cerno Cerno yéen ñaar yaakaar naa junni la ak cinq benn ngeen lën dëgg lën dëgg mardi la. Cerno hmm. rakk la ci man. Hmm. bis bi ni ko big waxee. waaw rakk la ci man. yow booy xool sax xam ne xale. mais maa wax mag un an deux ans mënu suñu diggante. voilà te rakk la ci man. Hmm. lën dëgg mardi la quoi noonu laa ko mën waxee. big na bu jëlee drapeau tuddee ko Cerno. day mel ni Dakar Expositor rek la ko tuddee jaaykat téléphone yeeg ñëpp. Mm-hmm. voilà nee na bis bi dañ ciy dem ak jàmm. Mm. parce que drapeau bi non violence la tudd. kon dañuy dem ak non violence gën a conscientiser booy rek. Mm. loolu kese la woon. lan la ñuy xaar ci Dakar Sport ni ñu war a ñëwee ci làmb ja ànd ak seeni client and ceeg seeni xarit ànd ceek seeni mbokk. non xam nga Dakar Expositor moom bu jugee rek jaaykat téléphone yëpp ay jug kon boobaa bés bi day gën a xumb rek mais kay li may bañ. mooy Dakar Superstore jug ñaari mbëri ñëw fa di di layam layam yi te buñ ko tàngalee rek ñu ñëw tàngal ko moom loolu kese la. ñaari booy pare allah voilà. waaw ah, ah. ah, kon baax na ñun waa Superstore dinañ ñëw ak jàmm indi suñuy produit di wax gars yi tamit ñuy profité waale. Hmm. ku bëgg a téléphone bu baax marque AirPod. tous les accessoires yëpp mu ngi Dakar Superstore. ci prix abordable te authentique la ñuy jaay jóge États-Unis hmm. eh, loolu moom dama koy profité waxaale lañ ko quoi te big big borom baax la yee eh, eh, borom baax la trop am na solo am hmm. bu baax a baax a baax big poto kontaan ci lii boole ñaari xale yoo xamante ne vraiment kenn musul bëre ci làmb nga jël leen yób fas yéene leen yóbbu arène nationale la cinq bi ñu jëm ñaari mbër yaa ngi noonu kii am na lu mu yor béjjën bi mu koy joxañ kii fas yi takk fas yi moom yii moom dama nga bëgg ci làmb man moom bëgg naa bu téelee yooyu yëpp bëgg mu ñëw mais na ngeen xam ne ah, attention règlement CNG bees am na n'est-ce pas amul laalante instant ñaar ñëpp ngi ci contrat bi kon da ngeen di loxo ñu joxe dig ba le 5 incha allah fële ci arène nationale Aïcha. ah Big Pato waaw maa ngi woo waa Pikine yëpp yëpp yëpp yëpp ku lim juum maa ngi woo waa marché Zeg mafia njaxas kafe bi réseau waa bu ko ragal bi waa école neuf ñëpp ñëpp ñëpp waa yeewu mafia tier bi maa ngi bëggee ñëpp na ñëpp ñëw moom dafa ne six car lay indi ma li may indi ci teer bi la xaj te day des sax incha allahu rabi. maa ngi ñaan ñëpp ñëw gaa yëpp ñëw ñu remplir bi sawaay nag bu ne day xeex moom <laughs> loolu dañ ko fay ak waaw maa ngi woo waa Thiaré géej ñëpp di woo sama papa Talba Cheikh. di woo sama grand mas sama grand Samba Ndiir. di woo sama grand Samba di woo ñoom Ngañ. di woo jaaykatu pièces yëpp. di woo waa caare géej di sant sama grand Ahmed Dem ak Bumako ñoom Sora Papa Kane di dem États-Unis nag sant ñoom momo momo momo momo e, e, États-Unis di sant kii Amet di sant sam papa Moussa di sant kii di sant Grand Line di sant momo Kolobaan di sant booy ma àndal ni Sita ak Abdou di sant waa Manko gi di sant waa usine ga ma dëkk nag di sant waa Caare Géej ñëpp waaw mu wax leen ñëw ñu jàpp ci combat bi la douze ñu mobiliser ñëw daan gan gi dem ñu bi waaw ki ma du ma ko gërëm du ma ko sant du ma ko gërëm ndax moom mooy man moom du ma ko tudd fenn fi ñu nekk moo tax nag mais du ma ko tudd fenn kii ma nii waaw di ko di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko bëggee waaw di xam ne lépp lay def ci man am na solo am na solo mbokk yi ñu leen di jox dig daje ba la cinq incha allah fële ci arène national ñaari ñëmbër yëpp sant nañ Lamine di leen jaajëfal di leen wax xew Lamine bi la cinq na ngeen ko waaj dina ñëw. dama ni bu ngeen ko daggee rek ma meral Lamine li may wax nag na ma ko jëlal maa ngi woo képp kuy amateur di bëggee lu TV suñu xarit suñu doomu ne lamin day jël soxna yal na ko yàlla may mu am ci barke mais damay wax benn affaire ku amul oran moo am nga wéef gars yi jàpp leen ci combat Lamine Lamine dafa jàpp suñu combat da ngeen jàpp ci combat am di waaw non déglu ma rek di wax ni li ma doon wax mën na nekk mooy face à face sans violence te lii CNG da ci fier lii police dina ci fier lii gendarmerie dina ci fier lii état du Sénégal dina ci fier mooy un jeune sénégalais bu ñëw ànd ak ay rakam di produit benn événement dans la discipline loolu ñu bëgg yar ak teggin ñu defar réew mi jiili. nuyul man naa booyee ak tanta waaw maa ngi santaat tamit grand Cheikh taal ah. grand waaw ak grand mas ak sama papa taal ba Cheikh maa ngi sant tamit père Mor mbay moom bëgg naa mu jàpp si biir ak ndongo Kolobane ndongo seen maa ngi sant ñëpp bëgg naa ñu jàpp si làmb ji ak grand Samba Ndiir gis naa ni ma taxawoo ak grand ngañ solo boo demee ci plateau bi nga sant gërëm sama waay kiri ah. maa leen di sant man bëgguma kenn ku dul sama waay kiri ah, barke ah. alxuraan dañuy sonni ci man maa leen di ziar bu baax grand laay